am na koo xamante ne tey tey peut-être suñu wax ji ñuy wax xamante ne duma la ko nëbb kalib am na fu ñu toll seen àdduna xaru rek la ñu gis naam yàlla rek rek mooy jigéen ñi bu jaral xaru ci sa protection yaay ci moom ndax ni ko yaayam tey góor gu la sañ a def lii kali muur boo ko amul si ndey mënoo ko am ci doom nañ waxante dëgg et la fille avait besoin vraiment joxe ci lii am na ñu ñuy seetaan tey ñu ngi nekk ci détresse boo xamante ni eh, te bu leen ko dara dara jaral loolu mooy message mooy joxe lii nañ ci jóg parce que chef de bi dëkk ci koñ bi ci koñ dee village la situation bi daf ko concerné su fekkee ñoom dañu denc inhumé une personne bu faatu ci biir ko moo tax bëgguma ci avancé ndax xawma loolu am nañ ko wala amuñu ko pour denc ko parce bu fekkee ni dafa kër dangay defi autopsie ba pare yóbbu ko ñu jox la certificat de démembration nga door a suul même bu dëkk yi dañu gis ne dañu seetlu ci àdd ci ginnaaw ay mag rakk wala euh, frère ak cousin profito dem suul loolu dañ ko fi doon gis moo tax léegi au Sénégal on interdit ça ku ko def ci koñ te mu leena leen kii amul autopsie nañu boole gis nga réew mi il dëkk bi sa koñ ku ko fa def te mu lenn li ñuy demuñu dem seeti autopsie wala demuñu ut certificat d'inhumation përëx përëx suur si kër wala përëx përëx dem jour suur ci almer yi nga xam ne c'est lointain demal nga boole ji police bu fa nekk wala gendarmerie yu ñëw góor gi sa conscience daf ko war a traversé doom ji nga xam ne moo fi des na jël kër gi nga xam ne da ko jëloon ci yaay ji mu jël ko mu delloowaat ko def ko ci turu doom ji loolu rek la fi dese loolu rek la ko dese pour mu racheté wu muy faatu. d'accord a dolli vite kër laa ñëw kër. salaamaaleykum. maa ngi euh, jooy devant tous les Sénégalais yaa am naa tar jigéen bu nekk jigéen doomu nga. rawatina koo ko xamantane dangaa sekkoon ak moom jàmm nga dégg circonstance yi nga xamante moom la gaañoo ma kii dafa nekkoon Europe di sëy ak borom këram borom këram nekk fii muy daw di daan dooleem di leen di jàppale ci as néew lu mu am il faut que nit ñi arrêté affaire hypocrisie mu yegg si première fait déjà dem na ba kook am doom donc minimum ñu ngi nekk ci deux ans ba mu amee ba mu seeg moom ba tey beneen fee mooy problème mu kër problème mu kër goo xamante ne noppi waalewu ko yaayam yëg na ko famille bi yëpp yëg nañ ko nañu arrêté lu ñu nekkee nit ki ñëw na tegal leen problème am même ko mun waxtaane leen ko xam ngeen ne lii alalam la amul ay sa jëkkër la sa kilifa la yaa ko liggéey moo ko moom

acte de citoyenneté dëgg dëgg dëgg nga def nga posé nii nii te bu ci teggi sa tànk benn yoon dégg naa la ngay demandé à ce que sénégalais yi jàppale sénégalais yi gëm nañu gumbawuñu texluwuñu xam nañ luy dëgg xam nañ lu dul dëgg te man personnellement je suis te soutenir parce que xam naa ne carrément yaa andi sous ni nit dem dugg bi néegam ces deux enfants qui comptaient ñoo xam ne dañ doon compter ci moom mais nañ xool li nekk ñu wax ko pour les gens yi nga xam ne dañ naan ay eh, da ngeen ci war a génn il eh, y a des preuves qui prouvent que xaritam la il a le droit de porter plainte des enquête dafa war a tijjeeku d'accord nañ waxante dëgg dëgg mais sa micro lan nga si bëggoon dolli ñun góor ñi da dañuy euh, mbambu tey fu mu ne ni moom ñun sax dañoo amee defet moom bon man je pense que Nabi Nabou am na am na droit dénoncer affaire bi quoi xam nga mu def lépp si yow ñëw fekk la nga def ko loo xamante ne kenn xamul lan la parce que ñun ñoo war a pare taxaw pour soutenir Nambu quoi man loolu laa jàpp ni war nañ ko jàppale ko en fait waaw te waaj ñu taxaw pour soutenir Nambu mi jàppale ko parce que loolu mooy yoon li dafa war a jaay góor ñi de amuñu yërmande si jigéen ñi ah, dinañ ko dinañ ko waa koñam dinañ ko xam dinañ discuter si loolu parce que lii kenn waru ko nëpp nëpp ko. non nabukaay nee na ma waa ji daf ko envoyé des audio sax di ko saaga nabukaay je l'ai demandé même de me transférer les audios mais moom it xëy na. comme ça ñu mën a dénoncer waa ji parce que kii. Euh, dinañ ci taxaw incha allah fii ak suba dina gën a kii incha allah. Nakalia is something for good day, but when Kumar said that it doesn't recover. I mean, very pense que j'ai cinquante pour cent quoi d'après bi sànq bi nabu di waxee rek dafa mel ni si mais nag cest à bu fekkee ñaari phrase nga gën ma leeral parce que dama bañ waaw lu jot a xew comme ça ñii laajte benn femme bu juróom ba muy jóge Sénégal nag amoon na borom këramam ba am nañu doom bu am dix-huit ba faa bi nekkee Europe fii di liggéey di liggéey di góorgóorlu ba yàlla ubbil ko si liggéey bi sax amoon na si accident de terrain moom kànkang ba am lu ko tabax bon mu bàyyi jëkkër ji si kër gi ñibbi si waat Europe di yi chaque fin du mois mu yónni benn deux cent euros pour dépense doom ñi ak jëkkër ji di jàpp si kër gi ñibbi si kër gi de un jëkkër ji jël ko aéroport te jëkkër ji peut-être yëgoon na ni jabar jee ngi ñëw mais ba mu ñëwee ba si kër gi à surprise dafa fekk benn xale bu jigéen ak lu tax may ñëw jël si ma waa ji lui dit que peut-être comme soxnaam la toog ba pare mu ne waa xale bu jigéen bi si kër gi kan la ak doom bi waa ne ko sama jabar la. ah waa ji ne ko ah benn ka ñoo fi am maa koy takk sa loolee naw encore une fois léegi ñu toog xale bu jigéen bi peut loolu mënu ko jox ndox ma kañ ngeen génn sama kër ngeen dem dundi ci feneen man ma nekk sama jàmm ak sama doom waa ji ne moom du dem famille bi peut-être dem la conte l'histoire pour nañu wax kii kër gi na ko delloowaat ainsi de suite ainsi suite parents yi di ko naan dañ ko réglé femme bi toog xam na ne lii xolam tooy na këram bu mu liggéey pendant des années amu si bànneex déeta waaye jëkkëram ñëw takk beneen jabar am moom doom déeta waaye mu jël turu këram defaat ko famille bi mën na progresser dem kër yaayam toog foofu daal jël ay comprimé daal faat boppam selon les dires de Nabou moo def trahison góor moo mettital jigéen góor moo tax jigéen faat boppam donc yaakaar naa ni ñi doog ñoo doon la beaucoup Kali en fait c'est une déception ah Nganou Mamou déception la en tant que góor cest dire Nganou Mamou déception la en tant que cest dire un psychologue et Nganou Mamou déception la en tant qu'un Sénégalais ndeysaan jigéen jigéen ji wax léegi ça prouve que ne c'est une femme mais jigéen la joo xamante ne au moins bu am yërmande ci borom këram maanaam ni borom këram waroon am ci moom moom moo ko mujjee am ci borom këram mooy ko am yërmande la waaye ko nangoo tarbiya la mais ku doon jàppale mu dem sax su demee Europe chaque weer dina yónnee même lu mu dee dee deux cent euros pour que loo xamante ni mooy dundinu borom këram amaana bu doon ci islam tey borom këram boobu moo ko waroon yónnee deux cent euros ci fu munti nekk am na milliard wala am na milliard rek borom kër googu su fekkee mu ngi taaba taaba am lu tuuti loolu noonu la ko waroon yónnee kon dèjà moom moom mooy xoolul xaarul bu mën a tax na lu na mais jëm na au moins di yónnee borom këram fu muy surtout kon au moins une femme charia bu doon jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam la su yonent bi fekk woon fu muy wàccee liggéey yonent bi mën na ñëw taxaw jullee ko boppam ngir lan am na benn ponk jullit boo xamante ne def na ko mooy lan xëy na ku doon tarbi borom këram et li gën a garaaw wax nga ko tout à l'heure xam mais foo mën a dem ba fay dëkklu kon def naa pour sagal sa borom kër la sagal njaboot bi ngeen dama am la parce que nag kali kooku su ko neexoon danaan xaaral ba mu nekk Sénégal ma door a tabax Sénégal dëkkuma Sénégal togguma Sénégal nekkuma Sénégal kon au moins su ko neexoon amaana mu ne non du ma investir Sénégal rawatina nag ma naan maa ngi tabax kër ba mën a wax ne si keneen ak keneen dëkk kon xam pour jàppale njabootam la pour jàppale peut-être na xalaat avenir ëllëg pour que bu ñu bisee ku def nag fanweeri at lu teg te fanweeri at lu teg yooyu noonu amaana kër béegi xëy na amaat beneen bi mooy peut-être lii lacune bi heure bi nga xamante moom la borom kër gi def pour la première ñu war ko souligner mooy cest à dafa dafa tooñ diine moom borom kër gi parce que nag takk ñaareel li ci gën a dagan soo amee soxna mooy da koy en doo ko tàggu mais da nga koy yëkkal islam loolu la wax ba pare maanaam takk ñaareel am na takk ñaareel ñetteel dagan na takk ñeenteel am na mais tey booy takk ñaareel dana yëgal sa aaw dafa mel ni booy takk da nga war a sa aaw ak sa ñaareel su kenn si ñoom bañi islam dafa la wax ne nan la jaral sax nga ala lay daganle nga dem nga takk kon maanaam moom même bu fekkee dafa takk keneen mooy war na islam mooy bu dee sharia sharia du munu ko sharia daan na ko sharia umu ndax yezna alaytani baadakum bi yahna wa faalaytani daaj ya xasna mi ne talaatil nisaa maanaam dafa baax ci bokkee dara mu ne la benn bi nga denc soo koy wutal beneen rakk wala moom ci bopp mag yi nga yëga ko ne bi nga am rakk su dee ñaar nga denc ñaareel beeg benn bi da nga leen war a yëgal mais xam nga lislaam wax mu ne ñaareel beeg benn bi su kenn bañee wala kenn nangoogul akali kon cest ci charia le gars yaa futte parce tàkk na ci goxam ba pare li gën a garaaw su doon dafa am benn lay la munoon am dama gëj a dégg sama jabar gisuma ko yëguma xaw ma ci lu mu nekk ma yaakaaroon daa dee mais ku sa jabar di yónni wala yëg nga ne sa boppam parce que war na ne ci islam moom mu ngi jot alal kon bu dee day jot alal jooju war na ne xam na ne jabar ji moo ngi dund ko moom moo ko tàgguwul moom moo ko yëgalul kon su boobaa mooy dañuy faral di wax ne sax

mais yéemul si wu juboo ba pare dafa jël kayitu kër géeg yëpp gëmloo ma ne amatuma dara alors ba ma doon def c'était pour son avenir bi ma doon def kooku tey xale xam nga su fekkee une telle moo am su xale bu jigéen bi teelul am ku ko dànkaaf pour mun ko jàppale dafa mel ne day am dëgg sërëx bi gën a rëy mooy ko dal parce que là on l'a laissé saafa su ñuy rek dañuy xaru parce que bu ñu wéetee bu ñu amul maîtrise bu ñu amul muy xalaat boobu ñuy xalaat chaque jour yëpp di leen kër mooy que ne dañuy am sens équipe bi nga xamante ne mooy parlan pour que lu ñu tuddee mooy xaru parce nit ki ñaara mooy si yow am nga sensu lu la munti métti am nga benn téléphone booy woo te téléphone saa yoo woowee lu mu tartar lu mu métti métti yàlla may na la moom Kaliphone mun na wax ak yow ba dëfal la mun na wax ak yow ba delloo la si par exemple ci yàlla wala indiwaat la ci àdduna et tout ça jusqu'à ce que tu viennes boo xamante ne amul nii Kali et sa famille parfois amul woon sekkul woon di gën nit ñi di wax ak nit ñi et tout ça kooku bu temps moo nekk ci solitude yooyu lay xalaat su ko xalaatee Kali première option bu muy am mooy jeexal dundam et que dafay parce que là où tu vas pas comprendre la chose pour bàyyi parce que selon doon da les comprendre mots qui ont waratuñ ko bàyyi muy wér et tout ça mais certaines personnes pensent que ne wér bi alors là attention vous avez fauté parce que ce qui bàyyi mu c'est pas là que vous na def benn dégâts ou une chose catastrophique malheureusement mais en résumé c'est ce que je dis non. waaw nëbbu maa ngi lay ziar bu baax ma non non loolu daa nekk téléphone dama ni non non allo waaw waaw si waaw coach lan euh, la ma yoon may actuellement man ma def ko parce que bëggu bëggu ma tamit tey ma dem parce que man instant yi nii pour xale yi know famem kenn du dégg boo mel ni jëkkëram kenn du xam mais tey moom dem na mais benn na bu génn na wax askanu Sénégal jëkkër ji de wor na kii bu ko defee képp ko xamoon jëkkëram bu dajateeg jëkkëram ci mbedd doot ko sax nuyu ñii dëkk ak jëkkëram te xam nañ ko paap la tudd waa ji dinañu lijjanti fotom dinañ ko affiché fii dinañ ci gën a wax donc yow bul lijjanti ñii di tok naan da nga maquillé wala ñii di tok naan nga tal live bul lijjanti loolu bul lijjanti loolu wa coach su eggalil après ñu jël amel kii si kanam après on revient. Ah. ñu kii tamit euh, gis ngeen dama xaw sonn tuuti tey moom duñ fi fanaan s'il vous plaît aussi la famille. voilà je pense que Kali sur ce point tu as très bien répondu xam nga man li ma la wax yow borom xam-xam nga machallah déjà tu as répondu parce que parfois c'est ce qu'on appelle une confrontation illicite Maintenant, parfois il am tolluwaay fu mu il faut a ngay confronter certaines choses pour que au moins on bañ un ay obstacle xam nga Sénégal mooy dëkk que xamante maintenir l'ordre def ñu wax l'ordre def ñu wax par la force des wax donc à un moment donné on a une posture déterminée pour mën a au moins xam yow la kan lan nga bëgg fan nga bëgg dem pour ne pas s'attarder sur les dix des personnes parce que n'y ñi dañ lay dialogue ginnaaw rek et que fait par la force dinañ wax na ko kay wax na léegi lu am solo lu yalla amul yonent bi amu ko parce que yalla suñu borom sax amu ko donc lu doomu aadama moo koy bañ ça c'est primo maintenant bien bi nag li la yoon may moi par rapport ak que ça soit mooy defante bi ki il y a possibilité def autopsie et tout ça il y a aussi une possibilité à ce que nous une enquête pour comprendre la chose de la démé à un quelqu'un qui a escroqué peut-être jabaram et tout ça il y a plusieurs na qui et tout parce que ne na arrêts même bu vous am surtout am papier de mariage même bu fekkoon polygamie le signé mais daf ko war a aviser à chaque buñ takk jabar te parce que loolu diine moo ko wax et que si article bi code de la famille daf ko wax daf ko préciser que ne booy takk ji ñaareel ba nga ko yëgal sa awa c'est-à-dire parce que au moins tu leur avais bien avisé que ne da ngay takk jabar yi ba dèjà yooyu yëpp ay buntu la yoo xamante ne su demee si yoon xëy na yoon mun na ko daan parce que loolu dafa bokk ci source bi femme bi yëg ne dafa am une haute trahison ba mu xaru parce que ñaar laa gën a jàpp et que foofu laay daaneele kali mooy dama jàpp ne femme bi li ko xaruloo mooy benn elle s'investissait sur une personne bu mu yaakaaroon ne ñoom ñaar war nañ mon a am avenir ba ci kër et tout ça Ndakaaru bi mu ñëwee yëpp dafa doon investir ci un moins que rien quelqu'un qui vaut rien un bi garaaw mooy hormis un moins que rien un quelqu'un qui vaut rien mais un traître parce que daf trahir takal ko wujji bo mun fa am dom te yëgalu ko tinuko kon au moins mom da doon yone alalam pour ñu dundele ko kenen donc toutes ces choses c'est des choses yo xamantene ne ça nécessite à ce que la femme puisse au moins porter plainte même bu génnee aduna ay wajuram ak ñeneen ak ñeneen mun nañ ko porter plainte topal ko yone allahumma inni as'aluka isatan wa mariatan allahumma asina hibatana ahibatana fi lumuuri assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah bismillah euh, am am am am bi bi xaw am bi bi ubbi micro bismillah

tey jii ki kuy góor budé jii gor mu ngi daw sa yaram war nga am ben sensation bi war yi ko fet premièrement le certain pabla c'est que dafa rus ci keur mu dee ne ngi kilifa nga au contraire li ko soxna ko légui léegi ya wara a dëkk sa kër naw sa jabar mais peut être par ya fous par par bëgg lu yom parce que les gër Sénégal yo bëgg lu yom de trop parce que tamit y' a trop de laisser aller y a trop de il y a trop de laisser aller à tout moment meurtre day il faut il faut qu'on mette les points sur les i nit faut que ci lu la prochaine fois nous mais à tout moment nous, négocier c'est c'est c'est compliqué en fin de compte C'est soxna le de mourir pendant 35 ans Imaginez, le but de mourir, nous Donner neloo guddi donner nos di nous mettons bu ñëw ba tabax kër dëkk na mais la moindre chose bu dee xam nga direct góor tuuti moom booy par respect la je dis bien booy takk soxla deuxième fois am nga droit bi ko su ko léegi-léegi mais avisé ko bu garaawul am nga góor nga am nga droit kom que nee nga benn gañ la yaa koy takk anyway yaa koy takk ok léegi yàlla def ne mu ngi ñëw ah jëlee woo ko aéroport te yaa ko doon jëlee kon donc y' a quelque chose qui qui est de ñëw na.

métteetu ko nee ne sama kër na man maa ko sama alal am naa droit récupérer sama alal yow bu dee yow dëgg-dëgg yow si dëgg nga ne jëlal sa jabar ak sa doom nga jël yóbbu bu dee jàmm mais ñama bëgg ak mu bëgg accaparer alalu ko waroon a daxal yaa ko waroon a bu dee aussi mu ne mu ngi sacrifier pour toi pour ta pour pour nga nekk à l'aise mais ana ngor dignité ana kersa Il na a un a qui qui n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit c'est ta c'est c'est ta sa soutenir parce que on peut dire que c'est un traitement, non il a bien bien exprimé vraiment you know donc du coup

Casamance ay doom la laal dëgg boobu sax seetlu na mais donc am na loo xamante ne eh, Kaly yaakaar naa yéen ay porte de voix te tey jii yéen a mën a mën a jàppale bëri parce que tamit Sénégal tey jii yéen a yor flambeau gaal seen affaire yu bëri tey jii yéen a ko yéen fa war a mën a dindi am na loo xamante ne da nga koy yëg seen bureau la ñu nekk nekk seen i dossier seen bopp yi day chargé de telle sorte que lu nekk si terrain bi nag bu ñu ko xam kon donc yéen yéen a ko war a au bout. n'aboutit na aucun compte à rendre encore une fois de plus yow sa wareef nga def te lépp lu si war a def lépp si war a taxaw taxaw la encore soutenir parce que lii lii en fait c'est affreux lii mënoo ko décortiquer mënoo xam en fait c'est compliqué maa ngi maa ngi tudd jégalu baax a baax. doy na waar jaajëf jaajëf frère jaajëf jaajëf Nabou selon yow euh, Wadi, lan moo ko poussé woon ba mu takk beneen jabar dafa am problème ak soxna Sele. wala dafa yaakaaroon peut-être soxna Sala du sa xalaat est waxtaan ak dem ne ko mbala kiy dem yëgatoo ne sax waa ji amoon na jabar je sais pas bu dee mën nga si avancer tuuti. allo waa Kadi. man moom honnêtement pour dire vrai man musuma musuma dégg ci kër gi nii ma dégg ci Fatima ñu ne ma fay na. na lenn lu mu par rapport au gars. man dama ko doon wax ni ko Fatima xaalis bi ngay yónnee nii parce que dafa dem ba benn moment ñu bloqué Western Union ndax li muy yónnee Western Union dafa bëri ñu bloqué ko Western Union ñu bloqué ko Ria boole ko ko MoneyGram ah te Senwave dafa am benn quota bu lay may ba nga xam ne boo dépassé duñ la may man maak daan obligé di ko jox ci sama Wave après moom mu may defaral ay virement wala moom ñuy xool nu ñu daan deflante tellement que daa yónnee ba féppam bloqué. dëgg rek moo mooy dëgg musul tas trent cinq de mariage kenn musu ko atte kali bu ko ay mbokkam seedelu leen loolu man xaritam même bu dee benn fan naa ko loolu musul tas te képp ku fi génn suba wala gannaaw suba naan dañoo amoon problème wala ku dee ak sa bàmmeel tasuñu musul tas musul wax dara waa ji ëmbal na ñetti jigéen jëppal jëppal la dëkk jëppal la ah. dëkk

Pape Pape nee na bul ko weer Pape kii lu raw weer lañ koy def nga ne bul ko weer t'as vu quelqu'un a poussé benn ba mu jaral ko xaru trahison bi mu def. la engrossé trois filles ëmbal la xale yu jigéen te bañ ka ko waxee bañ ko waxee Fatima Fatima na yàlla baax na moom munul say ba nii am lenn lu muy def te wax naa ko sama beneen vidéo bi nee na ma nabu li la jig jiggu ma man munu ma ko awma culture say tas munu ma ko sama éthique sama éthique sama morale may ma ma tas. Fatima lii la ma wax moom du tas lii la ma wax moom lii la ma daan wax ba mu ñëwee nag ñu ne ko ah lii ak lii moo fi am moom dani comme li am am na ba noppi moom li mu bëgg mooy na paap génn kër gi na paap bu dem génn kër gi bàyyi ko ci kër gi ak ay doomam comme moo moo taxoon mu rayante ci tubaab yi ba nii te loolu la ci def benn moment te xoolal kali kooku feebarul du tux du naan parce que xam naa ñoom foofu ñu bëgg a génn du tux du naan feebarul musul am problème ak police muy fii muy Europe mu mu nekk musul fay musul. mais mais mais Nabou lan moo waral tey lan moo waral tey sàmm ni nga kiiwee rapport am diggante maire bi ak góor man parce que man du ma jur sama doom ma gis jëkkëram. non parce que ki lo tek si si si bi. Kali Kali. Mère, bi problème je man y'a ngi comprendre mais man part personnelle bi man sama xel honnêtement bëgguma sori mais c'est c'est pas possible gis nga nit ki dom mo gën alal rotina dom mel Fatima la loo bëgg mi ngi ci am na droit nag mu lay gis ci ay xew ci ay baatare wala ci ay yooyu noonu ci famille bi mu dem ba si biir tee loxoom ci yow loolu waru tax nag tamit nañ waxante dëgg nga yéene ko lenn lu bon ndax moo doon joxe su demee ba mënatul nag am na ay raison am immigré dafa sonn moo sonn Fatima daa sonnoon mu dem ba peut te téye loxoom si famille bi parce que tamit donc y a des y a des non-dits quoi bi dañ dem ba singali Fatima non non xam nga problème bi mooy moom femme bi daa yore woon famem yaa ngi dégg yore woon famem ñu moo yore ñëpp nag ba ci seen i nijaay ba ñu nekk seen village ak tout femme bee leen yoroon mais am na benn moment nag rythme de vie bu ay sëram daan dundu genre femme bi moom day gis buñ demee ay xew li ñuy maye ak yooyu noonu te moom ñoom comprendre ñu moom nu muy def ba am xaalisam problème bi foofu la commencé femme bi nag xam naa mu téye loxoom si femme bi daan yónnee kese jëkkër ji waaw foofu la foofu foofu problème bi am yaa ngi comprendre foofu la problème bi am ok dinañ ñëwaat incha euh, Angel vite fait ak yaa ko après Zeynab ñëw Angel lan nga salaamaaleykum wa maa ngi nuyu ñëpp euh, dama dox rek yam ci kali parfois te suis nag dama dox dégg kaa bi li Nabou Dash wax euh, doy na waar d'abord yow sa xarit la sa xol sot na parce que sa xol na te da nga bëgg loyauté c'est-à-dire tay ji man li ma gëna metti li tax ma yé moy da nga ni kër gi ndaw si moko jënd moy yone waji ji manam mi ngi koy dundal waji dem na ba tak jabar ci loolu tok ci këram jëliwu ko mu ñëw gis loolu loolu metti ko dam la bëgg xamal tuuti rek nabu bu yaangi Sénégal amna ay organisme yo

ñun ñëpp dañ koy jooy suba ngoon gu dégg bëccëg parce que su la yàlla natoo nga tukki jàppeel sa bopp ne soldaalu xale Badar dara du doy da ngay dund pour yow pour sa sutura ak sa sakk waaye da ngay dund pour ñële ña nga bàyyi ginnaaw te ku ci yàlla may ngor nag moo koy def am na ñoo xam ne dañuy dem téye seen xaas di ci dund te faale wuñu kenn mais moom dafa dem di jàppale borom këram ndax bëgg gum ko bëgg. sàmm ko jox ko cër weesuwul mu jugal ko ci kër weer bu jot mu yónnee ko lu mu suturlu woo léegi nag daf ko violenté ba mu dee mu rey boppam ndax métit boobu demal ci yoon am na li ma ñi ma la wax noonu demal nga seeti leen ñu ngi Dakar njaay googu bés bu ñu gis fi boo xamante ne xëy na bii dañ koo exposé mais am na kaa yu gën a garaaw donc sans toi à l'aise si tu veux continuer cette lutte là Si tu le fais au nom de ta copine, parce que tu sais, tu en, tu en sais trop, je pense. Donc, amna yo que franchement parler man mi actuellement nii may may waxee nii sama xol baa ngi ci sama bi parce que ku ne xam ne ni immigré dafa métti ngay jigéen di daan sa doole di suturaal sa borom kër li jënti woo mu ngi liggéey wala liggéeyul li jënti woo am na wala amul loo am bokk ak moom déjà xale bu góor bi déjà une première rek déjà respecté wul jabar ji ndax jigéen boo ko respecté boo demee ba di ko takkal wujj war nga kaa war a mën a aviser muy neex di métti franchement parler na nak muy ñibbi Sénégal nga nga toog jëli ji woo ko ba ba sa biir kër fekk fa moromu jigéen ba ba pare man je me demande sa mère nan la mënee def yow nit boy far sax même bu sa doom dafa sik sax wala defalatu la dara yaay yaay la dom doom dafa sori ci xol la moindre des choses. sa doom bu ko jëkkëram takkalee wujj yow mi yaayam nga xeexal ko nekku fi yow xeexal ko maa sax nga yëgal ko ko dalal ko dalal xelam buy ñëw sax mu xam ni dina am lu mu fiy fekk dina ko mën a maîtriser ndax la muy jooy dana ko jooy fa mu nekk ba pare avant moo ñëw kersa peut-être bu ko ko yaayam waxoon wala famille donc man li ma ci gën a métti sax góor moom gis nañ fi góor def bu ne jigéen mais sa mère devant devant cette situation elle essaye de rien faire deful dara dara dara dara dara looloo ma gën a naqari te boo xoolee ba xool c'est elle la perdante li mu sonnoon pendant des années Europe lépp moom mooy perte ndax waa ji taxaw na comme lu na boo wax nee na jabar jee ko may këyitu kër gi donc kan moo mën a génnee preuve bi wane ni jabar ji may ko këru kër gi du loolu amuñu ci benn benn benn preuve donc lii nii combat bi sax normalement du nabu moo ko war a porté yaayam moo war a nekk ci kanamu nabu nabu bootu ci ginnaawam ba pare yow sa doom nan lay génnee àdduna nga toog ak xaritam naan ko est ce que xam nga li mu fi bàyyi woon matérialiste mi ngi ñëw ba léegi man daal kali comme li femme bi wax léegi rek suñu xol yi métti na lool du ma du ma du fi taxaw lu yàgg li may conseil bi ma mën a porté ñuy nekk Europe leen dong la ku ci liggéey xamal bu baax fooy dugal sa xaalis ñu bañ a jël seen alal di ko financer seen jëkkër yi nekk Sénégal man jëkkër bu ma nekkee ak sax ba Amérique lu ma liggéey sama xaalis sama xaalis la ma lay dimbalee ci dund kër gi lay doon waaye du ma jël sama xaalis di la ko jox ngay dund di la may loo dajalee dama indil jabar loolu du ma ko nangu. yàlla baax na nag merci beaucoup di masaw na bu baax a baax. jaajëf kàddu na solo jaajëf xam naa ne yéen ñëpp ay jigéen ngeen te la lii daal euh, metti na ñun góor it amuñu dara lu ñu wax wax parce que lii gàcce la ci bépp góor parce que góor moom bu teralalatul jigéen warul fay bii jigéen parce que góor la ñu sant nga dundal jigéen nga loose jigéen nga wottu jigéen donc bu demee ba yow sa moyen bariwul yàlla ubbil la jigéen boo xam ne yàlla suturaal na ko yàlla boole la jigéen bu mu boo xam ne suturaal na ko kooku ba mu amee it mënoon na ko denc ci compte bancaire mais dafa gis ne ko comme am na borom këram moom am nañu njaboot te jamono di investir jënd terrain am commencé di sàkket di baraak ba tabax xale bu góor bi encore une fois am na plein droit takk jabar loolu kenn weddiwu ko bu muy takk jabar tamit amoon na it pour yégal soxnaam maa ngi takk ñaareel mais droit bu mu amul kay mooy nga takk jabar ba pare andi si kër gi nga xam ne sa jabar bi nekk bitim réew moo fi raxas karo ba sonn tabax nga jëli ji beneen jigéen feneen ñëw dëkkal déedéet loolu moom amu si benn droit am nga droit nag takk jabar luweel ko kër yaa xam foo koy mënti luweel même sa jabar bu nekkee à l'extérieur nga tëj kër gi ngay fanaani feneen tëngéej wala caaroy di ay mais nga jëli ji jigéen andi ko sa biir kër jabar bu mu ñaq loolu day fekk mu neex sa jabar bale bu dee sa jabar bale waxoon nga ko mu xool sa situation baaxul mu ne la loolu du problème comme damay jaamu yàlla jëlal sama wujju naa di ko si kër gi comme kër gi yaatu na loolu du problème am na ñu ko mën am nañu ko mën parce que man ay jamono sunu kër am na ñoo xam ne luwe woon nañ leen fa mais gis naa jëkkër ak jabar ci biir benn néeg yàlla xam na ko billaahi sunu biir kër kenn wax ma ko nag ñun ñoo leen luwe te ay magum jëmb lañu mais maire bi ak paa bi aawa ñaare lépp ci benn néeg ak doom yi oblige jamono metti mais alhamdulilahi rabbil alamin dem nañu tey ba am nañ seeni këru bopp billahi donc tey lu ñuy naan rek doomu aadama noo ëppale sa morom rek mën nga ko suturaal du ma ne man déedéet du ma def loolu sama wujju du ma bokk moom kër sama wujju du ma bokk moom sax am na jabar ngeen bekk benn biir kër yéen a bokk ndey yéen a bokk baay jarul sonal sa jëkkër mais day fekk nag comme tey jëkkër ji moom kër gi wala loué appartement bi mais nu mu leen ne femme bi moo nekk Europe rey boppam ci seddaay ci taw ci naaj ci coono ci daw daw tere ñëw toog tabax dugal doomam dugal njabootam weer bu ne fàttewu leen mu ngi participer deux cent et quelques euros ci kër gi amoo loo fayee kooku lu dul takk jabar waxoo ko nga si kër gi waxoo ko ko déetawaay nga am doom waxoo ko ko déetawaay muy jóge bitim réew gàttandu woo ko dalal ko déetawaay mu ñëw di wax ak yow nga ne ko kër gi jël naa këyit bi def naa ko sama tur déception mënul ëpp loolu si kaw suuf waaw loolu yëpp tamit xëy na la kuwee a parti jaruloo tamit yemale foof sa bakkan parce que tey perdante bi yëpp

ñu ngi camp pénal am nañ seen jëkkër takk wujj ñu naan lu ma ko seetaan dama koy soode soode nañ leen ñu ngi leen te trente ans lu ko jar munoo ko seere ñaanal baat bu la may baat nga dem bu la baat nga xool ba am sa baat jàpp xool nag peut-être souvent mu poussé la nga def yenn yi mais maîtrise rek dalal dal parce que tey jii boo demee ci kaso ba di nga rëccu nga jékki-jékki rek am sa wujju ni nga sotti ko dawlin bu tàng jër tey léegi kooku ngi say séem yow yaa ngi ci kaso bi naan accusé à vingt ans wala à trente de prison ferme bu dem ba tey di nga ne doo ko def mais mieux vaut nga bañ ko def parce que rëccu day fekk jëf wees donc coach bu dee am na loo si bëgg a dooleewaat comme ça nabu ñëwaat parce que waa ji waat day menacé nabu foofu la ñuy jëm bu ko defee ñu yemale fi affaire bi ba suba il est guddi quatre heures jot na te dara dalu ma sax feebaru ma dara mais dama xaw a manqué nelaw parce que dama yeewoo tey teel xam nga ci kankan yeeg yooyu moo tax sama bëti tey xonk cuur nelaw des. ok coach bu dee am na loo bëgg a dolli rek bu ko defee après ñu ñëw si Nabou parce que Nabou ma disait que waa ji daf ko envoyé audio ba di ko saaga di ko menacé ainsi de suite donc loolu Nabou moom ku ko xam-xam ne du ragal dëgg fa yàlla ku ko xamul dégg nga ko ku toog di ko menacé da ngay sa bopp. te subaaj jàmm live bi mën nañ ko teel a commencé ñëwaat fekk nit ñi gën a nekk fii ñu xool luñ ci def apporte la ba ubbi si enquête waa ji buñ ko naree jàpp ñu jàpp ko buñ ko naree traduire devant la justice ñu ko devant la justice te kii dem yaakaar naa ne bu ko defee moom it ginnaaw dina sedd buy bisimilah coach Amadou Ba si xool bisimilah fi ziar voilà xam nga dèjà euh, fi nga daanee rek fa laay jëlee maanaam il faut que Nabouda soit forte pour que ay menaces ak yu demee noonu nit bu lay menacé bu mu munti def jëlal yooyu comme preuve dem traduire ko devant la justice et su boobaa dina doon yëf bi nga xamante ne mooy gën a mooy tax ñu pousser yëf yi gëstu lan moo tax lan moo xew ba waa ji di la menacer et par là on va comprendre la situation du début jusqu'à la fin ce qui prouvera que ne waa ji bëri na ay yëf yu mu def yoo xamante ne dafa jalgati yoon donc moom waa ji pour un conseil wala la sax menacer parce que bu la menacer soo ko traduire en justice dafay joxe raison a ce que justice day dem xoole ji lan mooy fond bi lan moo tax waa ji di la menacer

nga def ko nga sentir que ne am na benn sañ yëg-yëg bi wala am na benn doole benn degré boo xamante ne ba moom mii ndeyu mbili gi mu ngi commencé di la menacer donc ça prouve que ne au moins xëy na mu ngi woon ci live fo Kalifone bi doon la déglu wala mu ngi doon déglu Kalifone wala mu ngi doon déglu keneen ak keneen kon vous avez très bien fait pour que yëf yi mën a beneen bi na Kali mooy li may li may li may daanale rek mooy damay wax ne. c'est-à-dire ça prouve que ni sincèrement ñu ngi ci mujjantalu jamono parce que yii nii yëpp di am c'est des choses yuy wane ne tey doomu aadama yi ñu ngi dem bay jaay seen leer doomu aadama yi ñu ngi dem bay fàtte yàlla doomu aadama yi ñu ngi xam nga sàngkat yi da nga wax benn expression bu bu am solo nga wax ko nabu yaa ngi koy wax lu yàlla amul lu yonent bi amul et c'est-à-dire maanaam lu yàlla amul lu yonent bi amul bu njëkk ba ci làmmi rek la doon yem mais léegi maanaam nit ñi ñoo njëkkut a am sax reconnaissance envers yàlla mais li gën a garaaw nit ñi ñoo gën a gëmul gëmul ne c'est-à-dire dañuy dellu ci yàlla moo tax nu leen neex la ñuy doxee nu leen neex la ñuy defee nu leen neex la ñuy dundee mais wax bi mu yegg sax kal yàlla la neex tey jii kursu baata mënoon na fi yam dundam yam fi yàlla suñu borom subhanahu wa taala na mu jël kursu da ko fi jël kon est-ce que cest la nga xamante ne yaa ngi koy def yaa ngi ciy xalaat ëllëg la lay doon

mooy waa yi dafa def une haute trahison def escroquerie def ay yëf yi def une trahison boo xamante ne tey moo dem ba mën a acheter sa femme def li nga xamante ne mooy tey lii ko dal donc moom bu dul dara dafa war dafa sàcc dafa doon nit boo xamante ne dafa trahir yooyu yëpp kon yoon bu tegoo ci kawam amaana mu ngi la doon menacé et tout ça mais yoon dina fayal bul ci def dara nag lu garaaw bul ci def dara lu lépp loo xamante ne rek yoon war na la ko mun a may demal yóbbu ko ci yoon jarul xuloo jarul tongo jarul ay dàggasanteeg lepp lu mu la wax nak jël ko comme preuve à l'appui soit transfert ko pour des menaces d'abord parce que waru le menacer en tant que femme waru le menacer en tant que quelqu'un qui devrait avoir la liberté d'expression pour des faits divers nga wax si comme nit ci doomu adama yeb amé droit wax rawatina yow la gëna a yow la nek sa xarit yow la nek un quelqu'un bo xamante au moins vous avez eu à partager certaines choses kon tey combat bi yaa si jut et effectivement yaa si jut kon yow ya wara wax parce que yaa gën a maîtriser il y a xam il y a dund yaa nekkoon peut-être yaa partagé sax des choses sans indiscrétion avec la personne donc peut yow il y a war a donc bref Kali je m'arrête ici juste rek pour wax tellement tey dama xaw a en tout cas toujours toujours sincèrement Kali une fierté ndax depuis sànq ci live yi dama toog di leen seetaanaa dama toog di leen dégg ba benn moment bu may absenté génn ñëwaat peut-être laa gis ñenn ñi yëggee tout ça ma ne xaaral yëg. mais juste rek pour wax la comme dab. a yaa ngi dégg waxtaan bi def sànq lan ah, man de

buy moo feeñ nag mais am na ñu bëri ñu koy dund Sénégal ñii takk seen xaritu xaritu jëkkër seen xaritu jabar yi ñii takk seen seeni mbo seeni ñu yar am pa gaay Sénégal Sénégal dem ngay xool ba yàgg des fois tu te dis mais qu'est-ce qui se passe dans quelle société on vit vraiment suñ jógee di woote musulman musulman te defuñu jikkooy julli du ñëpp nag am na ñu ñu baax ñu ñu ñu am valeur mais des fois daal da ngay gis yoo xam ne da ngay tiit man bëkki dem benn femme boo xam ne jëkk du ko dóor ba presque ba xaw na ko rey tu te dóor nan mënee jël dabar bu ngeen demee ba toll ci dóor fase ko fase ko parce que man des fois damay xool wax def naa ko thème parce que des fois aussi xale jigéen dañuy def communauté de bien jëg sénégalais ak sénégalais ça marche pas parce toujours woor am na mère bu ko jëkk jabaram defoon jëkk kiyam jëkkëram defoon dañoo liggéey seen ak seen alal pendant des années France ba ñu jëm mag seen doom yi décidé ñibbi leen ñu jën seen kër femme bi war a ñibbi avant mu ñibbi jox jëkkër ne ñu defal seen kër jëkkër ji jiitu ko Sénégal pendant des mois takk jabaram ba benn bis xarit bi moo ko wane xanaa yëgoo lu xew mu explique ko la même mu ne ko non mu ne ko sa jëkkër takk na jabar et tout xaw ma suba la ngénte li sax kooku am na doom ma femme bi dafa xaar dafa kii dafa xam yóbbu hôpital ba fii ñuy wax doom yi dégg naa waxatuñu ak ak seen papa. mais nan lañu mën a dundee société bu mel noonu jël jigéen di ko martyriser di ko maltraiter di ko di ko di dóor di ko saaga jël alalam yow nga xam ne yow la yàlla bind teg la pour nga yor jigéen bañ na bañ na li nga yor li mu yor sa yoon waru ci ne yaa ko war a dundal woddu ko jox ko lu mu lekk jox ko mu naan ak say doom mais Sénégal da gis góor ñi dañuy si seeni jabar délaisser seeni doom abandonné dëkkaan ni ñoom rek ñoom ñoo ñoom ñoo nit wala ñoo gën ci àdduna bi mais war suñu bopp ñaaw cette homme na que nous mais beaucoup le Sénégal Bidlay wala qu'on se la vérité ñi hôpitaux ñi nga diabète ni hypertension ni cancer ni cardiaque lu du souffrance il est temps nag que ñi aussi voilà, que bopp yéen ñi sëy ko vraiment

c'est trop. d'accord am na yéen yaa ko war a yërëm donc ko demee ba nar a def ko yéen ñi non merci. merci merci la voix jërëjëf. merci frère Kali merci beaucoup merci Raba merci jaajëf. sister euh, Nabou xëy na am na loo bëggoon dolliwaat lu la laajoon donc euh, góor du menacer jigéen ak jamono yi fii ñu toll. Euh, rey dafa yomb donc il faut prendre ces menaces là au sérieux bu dee ay audio la wala appel téléphonique la nga enregistré ko. donc noonu sa moo dem ad euh, génn àdduna am nga plein droit ñëw wax li tax sa xarit génn àdduna yàqoo deram waxoolu ñaaw ci moom xëy na nag famille bi boo gisee duñu wax la plupart dañu ne ko suturaal parce que dafa xaru te Sénégal bëggunu nit ku xaru déedéet lan moo ko poussé mu xaru dafa am solo ñu waxtaane ko bu ko defee loolu bu mu amati je comprends famille euh, souvent lol quoi est la euh, femme bi dañ ko wala femme bi dañ ko euh, nga wax dinañ la wo ne la wa wa la deme mais comme affaire xaru la da ngay gis dañuy préférer parce que dañuy jappé affaire de roussel la affaire de kersa la affaire de amul rousse amul kersa amul dara tamit bu wax ni c'est au sérieux dëj bi lu fay def parce que nit ki au bout ba nit ki dee ah, nga ñëw si dëjal ka doomu aadama parce que da ngay nekk doomu aadama duñ la lijjanti duñ la faale nga dee ñu bëgg ñëw sa dëj toog loose na bu am na loo bëggoon dooli nga dooli ko comme ñu tëj il quatre heures dix-sept ba suba incha allah ñu gën si wax bu ne xeel allo waa Kali man wax naa ko sànq nee leen euh, man maa njëkk saaga dama koy wax parce que xaw ma problème bi fan lay mujjee ci dama bëgg tamit bu ma nit ñi di soutenir ma ci loo xam ne ci dëgg la ndax xam naa ne problème bi du problème bu ndaw man maa saaga waa ji moo ma fekk ci dëj bi di ma nuyu man ma nuyu ko waaye nuyu bu sew rek man dama xaa nuyu sabaa rek toog jàpp sama ñaamur yaa ngi dégg mu ne ma après dëj bi nga jaar kër ga on a ma ne ko bu ma ko waxat si aw ma lu ma waxtaat ak yow doome daam nga saaga ko maa ko saaga ba sama chauffeur bi ne ma nañu ñibbi comme ni ñaa ngi bëri balaa ñu lay filmer wala ñu lay caméra wala dara te dëju jàmbur nga ñëw te am na yoo xam ne waru la man maa ko def après ma dem dugg sama oto ma dem man maa def loolu maa ko njëkk saaga kon moom bu ma woowaatee wala suma ma vocale di ma saaga amaana xelam moom moo toll foofu mais man am naa plein droit ne ko ñëwuma këram man kër googu amatuma lu ma fay def sama tànk du fa tegu yàlla na ma yàlla baal waaye sama tànk man dootu fa tegu awma lu may def ci kër googu ndax fu ñu toroxalee sama nit ba kooku yow kan dañu waxtaan dañu waxtaan wax dëgg ci la kii du naan du tux elle a cinquante deux ans foo ko fekk day wird day yor jàpp day wird du xool du bañ na ko sax du déglu ay musique wala ay yooyu koo xam ne moom yoonam nekku ci yaa ngi dégg kooku ànd nag sagoom man nag damaa xamul lan ak ban moment la dugg ci néegam ak ban moment la naan ay garab ak ban moment la ko yooyu yëpp daal waaw man xam naa ñoom du ñu capable xam naa leen ndax foo ko yàggal koo yàggal koo yàggal xam nga waa këram xam naa leen bu baax a baax a baax yaa ngi dégg man dima man li ma sama problème li mu takk ak ki tak takk sax Kalista c'est pas mon problème man sama problème mooy xale yi seen yaay li mu liggéey pendant trente cinq ans ngal la waaye nañ ko ko dee ko delloo ay doomam seen doom xam ni kat sunu yaay lii moo tax taxoon muy sonn pour ñun man loolu rek mooy sama problème yàlla xam na ni ko le reste je m'en fous sama yoon nekk ci waa ji yàlla ñuy seetaan yàlla nga koy seetaan yàlla na ñu yàlla àtte barki Seydina Mohamed man loolu laay wax yaa ngi dégg kadi problème bi noonu la demee waaw problème bi noonu la demee te man instant yi nii boo bëggee dégg dëgg ñoom dañ ma bëgg a jaxase ak xale yi naan seen tata da weer weer seen papa ci réseaux sociaux yi te man awma intention weer seen seen dooma bi awma intention weer papa bi yow xam nga man mi damu man coow problème laa gën a bëgg mais damaa xam ni su ma soo gisee ma dem ak retenu damaa xam ni problème bi du sama problème en en benn côté vu que du man maay concerné direct bi moo tax jël ma photo paa bi exposé ko fii wala jël photo doomeem doomam yi exposé ko fii yaa ngi dégg ba tey maa ngi dewal sutura mais nag am na nu muy demee tamit bu waaju continuer man tamit damay réagir daal di génnee li ma xam te li ma xam nag dafa bëri li ma xam bëri na te damaa noppi toog li ma wax rek mooy nu delloo xale yi seen kër wax ji jaam jaam ci jeex moo xam fu mu dem ak jabaram man sama nekku ci te man nag famille bi à partir d'aujourd'hui moom sama tànk dootu fa teggoti amul lu may wax ak ñoom mu yaayam mu ay sëram mu ñoom ñëpp parce que mënuma comprendre Fatima am problème ñoom ñëpp ñu xam luy problème bi ku ci nekk mel ni xamoo lu problème bi parce que dafa arrêté di leen jox xaalis dafa arrêté di leen yónnee xaalis mais mënatu ko dañ waxante dëgg ñi nekk Europe xam nañ ko mënatu ko parce que am na moment boo xam ne boo nekkee Europe li ngay nga nekk xale li ngay liñ lay fay ak boo demee ba nekk mag du nekk benn parce que maanaam liggéeyam dafa dem ba dafa am problème mënatu ta def lu bëri Fatima lu bari mënatu ko def te du ma xaawi sutura mukk si réseaux sociaux yi nii yaa ngi dégg kon c'est c'est c'est de mon plein man ma nekk ak nit ki xam ko xam ni lii liñ ma li ñu ma ne ñoom nii la demee man ak kan xam naa ne demeewul nii dañ waxtaan nag Kaliphone man musuma dugg ci problème bu kenn fii samay problème laay am c'est la première fois ma jël problème ni def ma problème te bu dul woon xas biñ ma xas ni que damaa nekk dangaa damaa nekk di sal sal sal sa live te déjà yow yaa yëg sama live ñuy waxtaan que man yëguma seen dëj te fekk man dañ doon waxtaan Kaliphone man peut-être émotion bi ak ni ma ko yëggee xam nga rek nekkuma woon démb nekkuma woon yow yaa doon waxtaan ak man ba may reetaan ba ba ba sama xol bi féex ba ci loolu sax laa ne Californie ñu ngi waxtaan waxu sëy ak waxu muñ de pourtant sama benn xarit bu mën a muñ moo génn àdduna daa xaru nu nu ñu Californie nu ñaaw nu nu la deewee dee bu ñaaw a ñaaw dee boo xam ne yaayam nekkul à côté ay sëram dee dafa dee moom tudd te moom bu doon wax daan ak man wallaahi fi ma taxaw bay am ay problème foofu laa koy taxaw bay waxuma dara dara dara dara dara dara loolu rek man moo metti waaye yàlla xam na ni dara dara metti wu ma ci ci problème bi lu waa ci def moom moom la concerné ñu bàyyi noonu ba suba bopp bi day metti ma tudd tuuti dama sonn maintenant bu bu dee pare naa sama doom bi laay xaw a naax ni rek dafa yeewee mu ngi noonu c'est bon c'est bon sama gars yi ñu def noonu rek kon ba suba ak donc na bu après on se capte inchallah doom bi mooy yeewu mu ngi karan karan fii moom allez c'est bon c'est bon ok Allez, au revoir la famille. Comme nous sommes le gamin, allez, nous sommes à Diamant. Vous devez nous dire, mais calme-toi, vas-y, c'est bon. Ouais, vas-y, prends, prends ton téléphone, vas-y, appelle-toi. On se calme, allez. Allez, on va dodo, c'est bon. Allez, la famille, ciao.